ñuy sëriñ daara yi ndongo daara yi ak ñuy jàppale daara yëpp di leen ñaanal tawfiix ak ñu xew-xew boo nga doon dégg ci suñu daara Oustaz Salihu Thiongaan Cambérène de yor daara bu ñu wax man bon xudaa démb ci sous-préfet bu Dakar dal di ci suñu daara ànd ak ay nooni daara nooni islam nit ñu bon ñu xam ne corona bi sax moo leen gën ci réew mi ànd ak seen i takk der yoo ànd ak seen xel waaye ànd ak caay-caay gu mat sëkk ak coxorte gu mat sëkk ak woqol gu mat sëkk ak nitide gu mat sëkk ak manqué gu mat sëkk ak teeyede gu mat sëkk ñëw ci daara ji dajji bunt yi di dóor xale yi di leen ërtal di gëdd jigéen ñi sama buntu duusi duñ koy dajji ba ma xam ne xale bu nekk ci toilette bi xay na sax bëggoon nañu jàppante ak man waaye man fekk si leen ci loolu ndax bi ma ñëwee taxaw bëgg fekk na ma fekk boo xam ne jàllale bi ko naa xool ko ñu dellu ma engagé waat na xam ne ñii amuñu xel te tooñ la ba pare duma la lu jar moytu la ma dal seetaan leen ñu sama buntu néeg génne sama njaboot ci façon boo xam ne rey ko nit sax waruñ koy def noonu wax nuñ koy sàngoor ma ma na ko biñ yi teral la ndongo yi gëj a génn añ yëpp ma leen koy toggal te dañ ne woon ku mën a téye sa xale nga téye ko sama appartement buntu appartement bi dañ koo daj waaye dañoo fekkoon ndax ñun laa doon defan yi yëpp ñii ërtal xale yi ñii di yuuxu ci la kenn dooga di nax naan leen noppi leen def leen dànk bi ñu yoxu bëgg a bëri ci la leen commencé di nax waaye daal jëfi mala jëfi ku manque jëfi ku amul benn yërmande jëfi ku bañ alquran ak ñooñ alquran moom lañ def démb fii ci daara a na leen seen diine jaral lu nekk lii ñu nekk tappal yii ñu nekk ak not ñi ñu baax ñii ñu nekk dara jaral lu leen ko lu du seen poos kon yéen wayjur yi képp ku leen xoo ci jamono jii di leen wax ci seen doom dara lam leen di wax bu leen ko déglu saay saay su bon si bumu tax ngeen yóbbu seen ngëm yàlla saay saay su bon si bu tax ngeen yóbbu seen teeyaay saay saay su bon si bu mu tax ngeen jaxasoo ñu jaxase leen ak seen i état tax ñu jaxase leen ak seen mbokk ñu naan ñi da ngeen di exploité xale yi te ñoom la ñoom la saytaan di exploité ñoom bi ñu ñëwee kenn defantuutoon ñoom ndax dañ ko fekk ay nit ñu mat ay nit ñu nekk responsable man bi ñëwee may xam ne mooy police bi nga xam ne police a ko mu teey am expérience am yërmande yow mi waroon a xàtte nag boo tàkkaliku sa sabo bay sos wéyalaat dañu xam ne yow da ngaa tote garaat bi rek waaye xeeyewulu ko dañu dajje bunt bi ba ma bëgg wax ak ma matuñu ci la arrière leen def lañ doon def kon dañu dajje bunti, yi dañoo bokali, xal yi porte leen dugal leen ci kaar bi daal di yóbbu ah, ngi ci parapito di Sénégal képp kuy dégg sama wax ji ak kuy dégg rajo di déglu Diouf ñoo ko bàyyi ñoo ko bàyyi na nga xam information yi may joxe ci daar yëpp ci keroog bi fi njëkk ñëw le deux ci weer bii ñu nekk dafa waxoon sëriñ daara ne leen bu leen neexee ngeen ànd ak yi dem ci santar ya la mu du dëgg ñaari bi dafa waxoon ne xale bu nekk dañ koy wutal man laaxaw boppam mu sunna sunaanteeg morom gi lu ma un mètre ña fa dem ne nañ loolu dëgg ñetteel bi dafa leen waxoon dafa dafa waxoon ba mu demee ci centre bi dafa yóbbu xale yi daf na leen def ko jëlee ci mbedd mi te dafa dajji kër jàmbur jël leen loolu dëgg ñeenteel bi tey nee na kër gi amul courant dafa lëndëm bu leen neexee ngeen ñëw vérifié loolu dëgg kon nag maa ngi parépéto di wax ci képp kuy dégg kàddu gi da nga xam ne ñoo ko bàyyi Juuf xibaar yi muy joxe mu jógee ci daara dara amu ci ñi ngi ànd ak nafiq yu mag yooyu nekk TFM di wax ne sëñ daara dafa ñu doon profité ci yelwaan bi man ñoom ñi ne ñooñu wax ne sëñ daara dafa ñu profité xam ne sosal gor sosal gor moo gën a bon tuumaal gor moo gën a bon wax lu dul dëgg moo gën a bon te ñoom seen journal bi loolu rek lañ cay def mooy Diouf ñoo ko bàyyi nee naa ko amuñu dara moo gàngoor gi mu àndal yëpp bu duxuloon ak tappale ñuy tappale ñoo gën a ndóol ci réew mi waaye dañuy jël mbu turu daara di ci uti alal loolu du dëgg te wax lu du dëgg yalwaane ko gën fukki junne yoon bu jàllale ni ko lañ koy jox moo xam ONG ko ko jox moo xam état ko du ko jox daara loolu xor la day jàllale ni ko bëgg jaxasi nit ñi ak état bëgg jaxasi sëriñ daara yi ak wooy jëri xale yi loolu rambaaj la ñetti jikko yooyu ñoom ONG ñi nekk ci santar yi nañu fexe bàyyi wax lu du dëgg nañu fexe